Assalamualaikum wa wabarakatuh. ñi ngi leen di siyaar bu baax di siyaar mbokk jullit mbokk taalibi yëpp ñi ngi fi ci Malika terminus Malika ci safar gi nga xamanteni ci suñu borom dogal na association bi nga xamanteni moy association gëm sa bop di di ay door ko tuwar nga xamanteni yalla dafa dogal ñu yëngu ci dawal saret ya association bi nga xamanteni moy association gëm sa bop tay ñu taxawal bis bu baax bu am solo di togg ay bernde ngir safar Serigne Touba ngir wayal ko magal gi suba ba léegi ñu ànd koog yéen ñu ngi nii Malika terminus si association bi nga xamante ne mooy association gëm sa bopp kon ñu ngi ànd ak ñoom suba ba léegi togg xéewal di ko joxe ngir lépp ngir Serigne Touba ngir waajale ko màggal gi ndax Serigne Touba nee na màggalam gii kat képp bu dëlsee at mu ren nan ko waajal si ay xéewal ndax daf na da ma si santal ndax ku ne sant yàlla da ngeen ne da ngeen ne ak berne kon nag moo tax tey jii kenn demul bàyyi yow association bi nga xamante ne ñooy gëm sa bopp di ay dawalkatu saret nga xamante ni wax dëgg ay jàmbaar lañ ay ay góor yàlla ay dóorkatu war lan ndax lépp lu ñu am dañ koy liggéey lépp lu ñu bëgg dañ koy ñefe pour am ko. ñuy jàmbaar lool nekk Malika di dawal sareet waaye nag doonoon dawkat sareet yoo xamante ni sii te leen di tudd di tudd leneen ay liggéeykat lan lépp lu ñu am ñoo ko liggéeyal seen bopp. lépp lu ñu bëgg dañ koy liggéey seen bopp yor seenu njaboot yor seeni waajur di dimbali seen am di jàmm. kon euh, ñu jàll si wax soxna euh, soxna si ñu ngi lay siyaare ba. ñu ngi delloo ziar. tur bi naka la. Maymuna Saw. lu waral bis bi tey ngeen jëmmale ko nii ak lu la boo rek association gëm sa bopp. xana nek xalé yi ru nek ci koñ bi rek bëgg fonk seen bop bëgg seen liggéey jox ñepp ciir wa moo tax ma bok ci ñom waaw. lu waral tey ñu def li bis bi. xana magal safar gi rek bis 18 safar bi magal ko ci barke seen gis kan nga nek seen biir ñom ñepp ñu bëgg la te ku ne xana xamne kan dawal ko do saret dafa naqari àndal kon lu war a sa digënté ñom ban lan la yaay ñom ñepp ñom ñoo yaru rek wax deug yalla amuñu benn problème ndax koñ bi yaatu na nit ñi bari nañ fi gi nga kër gi ma nekk fi ñew samay mag lañ ak samay rak japp nañ tamit ba yépp a ma ngi leen di sant ñom ñepp di leen gërëm ndax bu du konté ñom tamit duma ci man dara wa ban conseil nga leen di jox comme comme ay ndaw lan té sareet lan yor té ku ne xam na ne ci tali bi dafa xawa met ak auto yi ak lo leen di conseil ñom ñu gëna gogol gëna am yar surtout yar bi am respect fonk tamit seen liggéey ndax ku yàgg si rek ba fekk la fa te liggéey rek mo leen taxaju a jóg wax borom auto yi ñom tam lan ñu mën mën a muñal borom saret ah wa ñom tam nañ leen muñal parce que ku nekk rek da ngay wut lo yebbu sa kër ñu jappalante rek muñalante surtout borom auto yi ñu jappalé borom saret ci si yonante bi Euh, màggal gi noo koy waaje ah xanaa préparé rek ànd ak sama waa groupe bii rek fu ñu ma yobbu rek ma dem bu soobee yàlla waaw. safar gi da wax dëgg yàlla ñëpp neen macha allah waaye ñëpp neen soxna May moo neexal ma safar gi. ñoom la rek ñoom tamit seen poste tamit diis na xam nga match bi metti na waaye seen dépasse macha allah bu déwénee yàlla yàlla na ëpp lii waaw macha allah wax dëgg yàlla kon kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ok man leen di jaajëfal maa ngi leen di ñaanal di leen sant di leen gërëm kontaan naa si ñoom wax dëgg yàlla ndax xam nga ne ñii magew ma leen lu bari te jox nañ ma cër bu ma sëkk ma leen di ñaanal rek gërëm suñu waa kër ñii ndax man moom xam nga li moom mënu ma koo defar waaye lépp ñoom la waaw ma leen di sant di leen gërëm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. asalaamaaleykum la soxna si tur bi naka la. man Nogoy Thiaw laa tudd. Nogoy Thiaw ñu ngi lay siyaar bu baax. lu waral tey bis bi nga ànd ko ak euh, association gëm sa bopp di ay gone yor ay sareet te ku xam na ne ñu naqare àndal nan suñu borom dogal nga ànd ñoom ànd bu rafet lu waral loolu. xanaa ñu am yar am teggin am diina am lislaam fonk Serigne Touba rek bëgg Serigne baa rek ma leen di ñaanal nag lii ñuy jublu nii di ko mébét chaque année yàlla na sax yàlla nañ dund ba leen di ñuy rey ay nag ay xar ay gileem. xale yi am yar lan nat yor sareet rek nat taxut a bon dañuy gënoo gëm seen bopp rek di liggéey bañ ku leen fekk ci gaay dem ba man da dama leen di ñaanal fu bëgg a àgg yàlla nañ fa àgg salallaahu alayhi wa salaam ndaxte xam nga lan moo gën a neex ci ay xale gisoo leen ñuy def ci nekk su noonu man de gisuma leen ñuy def ci nekk su noonu liggéey daal laa xam bu ñëwee toog sama taabal toog ndékki buñ paree dem seen yoon kenn yore lu ma ci dara nag kaf ak samay doom ree wax dëgg yàlla man daal maa ngi leen di ñaanal yàlla sëñ Touba yàlla na leen ràmm waaw li ñuy wut ci yoonu sëñ Touba yàlla nañ ko am. loo leen di wax ñoom ak borom oto yi si kaw tali bi loo leen ci conseil ñu mën see gën a góorgóorlu. xanaa ñu liggéey rek ñu liggéey rek gëm seen bopp borom oto yi kenn gënu leen ñoom it fële la ñuy taxaw ci terminus ba daw ñëw ci taabal ji ñëw jënd daw bañ naa ko ba man maire fu waay wàcc 100 lañ ma tudde dan ma tudd dama leen naan da ngeen a mën a piraat piraat leen ndax man léegi cent vingt cinq laa jaayee ñu may ree loolu lépp nag kafak ree la rek ak njënd ak njaay mais nag ñoom ñëpp laay ñaanal képp ku ci am sa métier daal yàlla na la ci yàlla sans borom defal li nga ci bëgg muy borom oto yi muy borom sareet yi muy borom ñëpp képp ku ci am sa métier yàlla na la ci yàlla defal li nga li nga li nga si bëgg ci sa métier jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal ba ñu ngi lay siyaare ba waaw ñu ngi delloo siyaar bu wér wér wér bi naka la maa ngi tudd ibrahim Fall ñu gën ma xam ci baala Balla ñu ngi lay nuyu baax ñu ngi lay sant gërëm bu wér wér wér ñu ngi lay laaj maanaam lu waral bis bi tey ak association bi nga xam ne mooy gëm sa bopp loolu la si boole waa association gëm sa bopp bi nag yaatu na mën nañ xëy na dañ koy goog commencé mais bëgg nañ mu gën a yaatu ndax dañu di ay ndaw am jom am fulla am fayda gëm suñu bopp yor ay fasag ak sareet di liggéey nag ñu xeeb ñu loolu waaye ñu tam ñu rëy lool ci suñu bopp ndax tamit fas ak sareet nekk na loo xam ne soo ko yoree di liggéey dinañ la dëkkal fu nekk dinañ la waxal lu ne mais du tee yow mi yor sa fas ak sa sareet yaay liggéey man mii dama yor soxna yor njaboot yor kër mën naa wax 2008 ba tey amul lu ma jaayul mais fas ak sareet moo ma sagal tey place laa yor fas ak sareet laa ko liggéeyee ñoom ñii ñu bari ay célibataire lañ mais ci fas ak saret la ñuy yor seen kër kon ñu gën a xam ni borom saret nit la premièrement mooy jàppee wuñu nit mais ñàkk jàppee nit mi dañu naan ñu bon ñi ñoo yàqal ñu baax ñi moo tax ñu ñàkkal ñu fayda mais ñun ñu am la am jom am fayda ci suñu bopp xam li ñu bëgg moo ñu créé association bi tuddee ko association gëm sa bopp di ñaan yàlla nag ñun ñu ci bokk ñëpp masala ñom ñepp a ndax amu ci kenn ko xamne dina la fekk tay ngay def lu jaadul ak lu jaadu yeb man la bàyyil te do bàyyi ñun ñepp ci suñu biir nak non lañ mel kon ànd nañ ba noppi dañuy ñaan nak deug lal ko ndax deug moy jëmele and bu nek kanam suma ma de bu ko kenn ru sa wax bu keneen de bu ko kenn ru sa wax loolu may waral and mën jëm ci kanam association bi nak tay daño créer daño organiser lo xamne moy manam 18 safar muy lu yaatu bisla bo xamne xool ni mu yaatoo man taalibe Seydi Aboubacar laa dinaa ne ci pays seexu na ama tijaan ba waaye sama maam Fall la sant ndax maam Seera Fall maam Dimi faal mi laa bu yàqul bu yàggul moo jur sama nday jur sama baay wa daanika ndax boo dàqee sama maam Mari Fall day ñibbi ca maam Jëmb Fall nga dàq Daam Fall mu ñibbi ca maam Jëmb Fall kon ku ma tee doon Baay Fall waaye maa ngi naan ci payu seexu na tijaan ba kon ñu xam ne bis bi safar gi ñun ñëpp ñoo ko moom sëñ Bamba mi ko créé ngir xéewal ñun bu ñu kenn bëgg xéewal moo tax ñu dugg ci muy nag suñu premier tànk te yaakaar nañ ne xeebuwul te dañoo ñaan yàlla bu déwénee mu gën a évoluer gën a jëm ci kanam lii dañ koo waaj rek ci diir bu ndaw pour nga xam ne maanaam mbiri diine amul caaxaan sëñ Bamba amul tànk ginnaaw dañ koo laal rek mu neex dem ci ngoon borom sare ji nañ wax dëgg 18 heures lañ jug ket presque am nañ fukki junni 18 rek balaa mi ñu am na fukki junni kon suñ suñu xëyoon ñaata la am kon ñun bu ñu xeeb suñu bopp te xam ne bis bi borom bis bi jar na lu ne ku ne nag man nga toog ci di wax waaye bamba kenn la ca bambam nga de man ma ziyaare sëriñ bu sëriñu tiijaan waaye seyxi bamba kenn la ca bambam nga kon nañu am ful la am fayda kenn gi ñu nekk kenn nag di kennal bis bii dañuy ñaan yàlla ci kenn googu borom bis bi kennal ñu bañ raw suñuy maas ndax nag bërigo ci mbartal la te xam nga luy bërigo ci mbartal soo buuxee dem soo buuxul day dem waa taa nga ci teg sa loxo mu dem moo tax ñu ngi ñaan yàlla defal ñu jàmm defal réew mi yëpp jàmm jubaluñ sunu biir def ci Malika jàmm association bi ñu yor dem ba yaatu ba état reconnaître ko maire yi ñëpp reconnaître ko jox suñu gëdd jox suñu cër ndax dañoo nekk ci ay tànk yu garaaw yoo xam ne dañoo bëgg a évoluer sareet bëgg nañ sax ñu wutal ñu këyit yoo xam ni kuy dawal sareet da ngay am këyit. Ah, loolu moo tax ngeen def association bi. loolu ngeen si bëgg daal. loolu lañ ci gën a jublu mooy dañoo bëgg képp kuy dawal sareet muy man muy sama morom ku ci nekk nga am këyit boo xam ne bis ñu la nee tiib téye wala nangam yow la am du yow ñu téye sa këyit xam ne yow mi ko sangam nga bokk. ñooñu bu ñu teewee xanaa ñun ñëpp mën nañoo bokk fenandoo mais ndax ñi ne bokk association bi yéen a ngi leen yéen yéen yéen a ngi leen di tàggat ngir ne ah, daloga ñii la war a mel ak ñii la war a mel loolu moom yàgg na nekk suñ tànk ndax yaakaar naa ku ñu xam gis suñu kanam gu xeebu gi rek war nga xam ne mosu ñoo dox ci dara lu ñàkk fayda te fu ñu gisee nit ku xeebu sax koo xam ne xëy na tànki xale la yor dañuy wax ak yow ci xel ngir bëgg la jubbanti ba nga tege ci yoon ñun jubuñu nag ndax nil n'est parfait mais yalla yalla mo yor ay di len jubal kon ñun bu ñuy def dañuy jëm rek ñaan yalla boole ñu ñu and doon ben surtout lool mo gëna yok tax ñu créer association bi doon ben ñu gëna jëmmal borom saret gën ko jox ciir ndax li ñu def ni rek tanki kanam la ndax amna ñu créer 18 safar di bëgg def def e édition amuñu amuñu li ñu am ni bisub tay kon na ñu xam kon andando du morom ben loxo man na sànni way bu fukki loxo sànnee ndoro ben loxo kon nañu ñu ñaan yàlla jubaluñu yalla def suñu biir jamm defal ñu xéewal defal ñu suur defal ñu teranga te xam li lii xéewali kese la ndax bamba di mawda mawdo di bamba ndax ca mam maram la ak mam balay sa de kon ñoom ñaan ñep ben lañ kon ñun ñep nañ and rek yor suñu loxo ci mel pax lu ñu mat fekk ñu te inshallah allah. sareet yor ko ci tali yi lu ngeen lu ngeen jakonté yéen ak auto yi ci kaw tali bi ak loy wax borom sareet bi yor xëy këram génn ci tali bi ak auto yi loy wax borom sareet yi ak loy wax borom auto yi. Ah, premier ma xam nga ñun amuñu keuyit te yàpp ak yak lañ yor yow yàpp ak yak nga li nga yor yàpp ak yak la kon da ngay tege ci yoon ba nopi daw borom auto bi ba mu defan ji ragal fek ragaloo ko de dang ko jox ciiram ndax tay borom auto bu defé sok ak borom sareet suñu ñëwé dañ nan borom saret bi poussal parce que lan amo keuyit pourtant ak ya war am keuyit lu sel nga yor lu am solo nga yor muy lan fas amul kilifa diine bu ko fi musul yar ba ci mam Seex Bamba amul na ngeelumul juróomi jébb ñu koy wax jébb juróom kon fatak saret selen na li ñuy njëkk ci suñu bop moy ñun ñu jub ta jubal premièrement ñun nañu jub ba nopi jubal borom auto yi nga xamne ñom lañ ko sekkal ñu yërem ñu xamni xeyum 404 yamul xeyum bam ndax ñun presque ñun xeyum bam lañu fa sar lañ yor mais tay so yoré doole jo xam 404 nga yor bo dal ci saret dang koy gaañ même boo ruusul borom saret bu la tooñee même boo ko mënta ruus ruusal mala bi mu yor ñu nit ñu jubbante suñu bopp xam ne nag jubuñu waaye ñu ngi jéem a jub ñoom it ñu comprendre ñun ñëpp ñu ànd tege ci yoon yaakaar naa bu ñu comprendre ne tey su ma comprendre sëwër sëwër bi comprendre ma ñun ñëpp dinañ mën a def incha allah ci kattan ñu ngi lay jaajëfal bu baax kaddu yi am na solo lool te suñu borom motul lépp si baag sëñ Tuubaa looy looy looy looy dénk association bi association bi ma leen dégg mooy premier dëgg deuxième deug troisième deug ndax ànd ta go jëwante amut solo man na ni association bi bu gisee may wax sax ñu bari danañ ki dawul ñew tour ki dawul dem bërepp sangam sama lo nak man duma dem man dem dem du sama yif mais suma ma gisee mu woor ma ni li day jëm kanam Pape Moussa ngi ni ak ñu bari man nañ sédra man ah nañ def nangam nañ def nangam kon premier deug deuxième deug troisième deug nañ sax ci deug ñun ñep ku ci gis sa morom nekk ci lu jaaduwul nga wax ko deug ki nga wax dëgg nangoo deug deug gi. ba noppi nangoo tourner man suma jume nga wax mako ko jume nga wax ko yaakaar bu ko zahiran wa batinan yalla man def dina jëm kanam inshallah ah jaara ba jaar jori tour tur bi naka la. man accord Diouf. accord Diouf. lu wara boral nga nek borom saret dem bam yag am association bu judd bu gëm sa bop nga nga nga bokk si. lu waral loolu. ah waaw sant yàlla bu baax rek gën a sant Serigne Touba bu wër. waaw dina jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. moom mi ñu tàggat tamit taataan suñu xol yi boole ñu bañ mën a doon benn. waa association bi nag moom aw ma seen fay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di rafetlu tamit seen teewaay bu baax a baax a baax a baax. parce que gis nañ taxawaay gis nañ jom ji gis nañ fulla ji tamit gis nañ ngor gi tamit. association gi nag liñ ci dugal moom mooy que ne gëm sa bopp gi rek. parce que boo nee gëm sa bopp moom dara desatu fa yaakaar naa ne waaw moo tax nag looloo ñu ci gën a boole gën ñu cee dugal tamit ñu nekk ay tànk yoo xam ne tamit dañoo ne ci yoon te ci yoon gi ñu nekk nag ci boppam war nañ cee mën a jubal ba ëllëg ak ci biir tamit képp koo xam ne dégg na association gi rek war naa xam ne que tànk njub ak fulla ak fayda moo ñu yëkkati. yaa ngi dégg liggéey sare gi ñuy liggéey nag dañoo ñun dañ cee fier parce que lan moo tax. dañ cee am suñu fulla am ci suñu fay fayda tamit te gëm ko waaw te xam ne nit ku nekk tamit booy wuti tamit ci benn ngay tàmbalee benn googu ngay tàmbalee nag bu ko yàlla dénkee da nga cee war a wane sa jom wane sa fulla ak sa ngor waaw te looloo war a sax ñu gën a sas association gi ci boppam parce que bëri na borom saret foo xam ne dañ koy dëkkal te dëkk fa li wolof njaay naan doomi aadama bëri nañ mais yamuñu nit ku nekk li nga gëm amaanam sa morom gëmu ko nit tamit dina xëyee këram jóg fulaak fayda yëkkati ko àndandoo bu bon dugal ko ci loo xam ne tamit bu ëllëgee turam day yegg foo xam ne wax dëgg fa yàlla jëfam mën na faa ñaaka yegg ak xelam tamit mën na koo ñaaka daj waaw te li ñuy wax rek sek jour borom saret moom li ñuy naan dafa weex dunq parce que lu jóg bu dee lu baax la la bon la rek lañ koy dëkkal moom ci boppam mais doo dégg borom saret ñu yëkkati dara lu baax ñu ne borom saret ba déedéet lu bon lu jóg nag ñu jiñ ko borom saret looloo gën a yokk tax nag ñu sas association gi parce que lan bëgguñu ku ñu tuutal bëgguñu ku ñu yàpp tamit bëgguñu koo xam ne tamit daf ñuy dëkkal feneen ak feneen parce que ñun ñëpp ay borom njaboot lañ fii ku fi amul soxna tamit yaa ngi fekk say waajur te say waajur tamit ci yow lañ yaakaar yow ci sa bopp tamit ci sa bopp nga yaakaar kon nag fas yi nga xam ne ñun ñoom lañ yor amaanam ñeneen ñi ciy wax dañoo xamul njëriñam mais ñun ñi nga xam ne yàlla suturaal nañu ñu yor fas yi dëkk ak ñoom di liggéey ak ñoom xam nañ fas yi fiñ ñu toll xam nañ li ñuy jëriñ tamit xam nañ fi ñu toll ci ñun. kon ñun nag ku ñu xeeb ci boppam ñun xeebuñu suñu bopp waaw ku ñu xeeb ci boppam ñun xeebuñu suñu bopp. yor yor fas dafa xaw a métti. léegi looy wax ki nga xam ne dafa yor fas di ko dundal nu mu war a mel ak fas yi ak moom nu mu war a mel. waaw ndax malaka dafa xaw a nga yor ko war nga koo mën a yërëm itam moom mala bi. Mm-hmm. waaw yor fas di dóor di itam dafa xaw a métti fas nun ko war a yoree ak ki ko war a yor kan moo ko war a yor. waaw loolu tamit dëgg la loolu tamit war nañ cee waxtaan bu baax a baax tamit gën cee ñaaxante te xam na tamit mala la mala gi yàlla da koo taataan xamul dara amaanaam bu xamoon dara yor xel bi ñu yor ci boppam amaanaam ñun ñii ñëpp kenn mënu ko cee yor wala nga def loo ko loo xam ne bëgg koo def. kon nag war nañ cee gën a waslu àq bu baax a baax a baax te xam ne doomu aadama li ngay liggéeyee ci boppam mu doon sa njëriñ di la sakk ci boppam gu ëpp gi nga jox sa bopp parce que balaa kenn di ko naw yow mi nga xam ne yow yaay xëy moom mu lay fajal say soxla ci boppam yow yaa ko war a njëkk a nawloo parce que tey foo xëy ak fas boo amee ñaari junni tamit donte ka lu mu bëri bëri bëri bëri ñeenti téeméer la lay laaj wala ñaar téeméer wala juróomi téeméer kon na kooku ci boppam booy xëy moom war nga di mën a waslu àq ci moom bu baax a baax a baax a baax te que ne da ngay jàpp chaque jour que ne li nga koy def ci boppam ni muy méttee ci yaramam ku la ko defoon tamit fa tool si sa xol rek waaw kon nag war nañoo gën a mën a ñaaxante ñun ñëpp waa gën a bàyyi waa suñu xel tamit te xam ne que mala la yàllaa ko saak waaw dafa doon loo xam ne dafa tedd parce que li ñuy naan doomu aadama ci boppam yaa ngi dégg nit ku nekk nag yaa xam sa tolluwaay mais jur gi ci boppam tamit war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax. station ba ci duggee ba léegi ban yan njariñ nga si gis. association bi wax dëgg fa yàlla ba ma ci duggee ba léegi ak bañ ko sosee ba léegi wax dëgg yoonu yokkute rek lañ ci gis ak yoonu ngëm-ngëm tamit ak fulaak fayda parce que chaque jours que ne gis nañ ne que fi mu ñuy yóbbu ci boppam ak lim ñuy won ci boppam ak li muy def ci ñun ñun ci bopp ñun ci suñu bopp xam nañ ko bu baax a baax a baax te di ñaan yàlla rek. mu taataan bu baax a baax a baax gën a boole suñu xol yi tamit ñu doon benn gën ñoo may jàmm ak wër gi yaram. te li nga xam ne moom la ñuy mëbët. yàlla nañ ko yàlla mottalil ak jàmm. yow mi yor fas si réew mi nga bokk looy wax borom réew mooy Macky Sall boo ko woon wax en tant que borom sareet. en tant que borom sareet may wax ak borom réew mi mooy maanaam que ñu respecté borom sareet yi te xam ne tamit ay citoyen lañ comme ñoom parce que tamit ay doomu aadama lañ. li ñuy naan nit ki moom bu ko xeebee ca la muy liggéey wala bu ko xeebee tamit ca melukaanam mais gëdd gi nga ko war a jox ci boppam da ko war a jox ba mu sëkk parce que bu ñu nee borom sareet la rek mais waruñu koo dëkkal feneen wala amul kàddu ci réew mi amu fa dara déedéet ñëpp a yem fa yàlla mais yàlla nag ci boppam moo maye te wut waaw kon nag bu ñu xool ñoom maanaam ci seen am-am wala ci seen doole wala que ne nit ki sareet lay dawal déedéet nañu xool ne jaamu yàlla la comme ni ñoom waa war nañ cee bàyyi xel daal bu baax a baax a baax bàyyi xel borom sareet yi tamit te xam ne ci dëkk bi lañ bokk waaw. xamne tamit ay doomu rew mi lañ dañuy rew tamit di gorgolu tamit baña jël yef jaamur wala baña def naka sudut non mom moñ ci gëna yok tax ñun nak li ñuy wax rek li señ bi di wax rek ñak jëriñu moñu taxa tax wa ñu lay jaajëfal ba ak ok ñu ngi leen di jërëjëfal baax yeen tamit di leen di sant di leen di gërëm baax baax yal na yàlla yokk gi tamit gëna yok ki ñu taxawal nii moy pam Moussa mu nga xamne moy bi président ñu ngi nuyu baax. wa sénat ali ñu ngi lay ziaru baax di la jox sa wàcci waaye te di la ziar bu baax a baax di ziar suñu jëriñ ñi nga àndal Serigne Pape Diop ñu ngi koy ziar bu baax ak suñu cameraman bi nga àndal ñu ngi leen ziar bu baax di leen jox seen wàcci waay di leen ñaanal jàmm si yéen rek jaajëf. yow yaay président euh, association bi kañ ngeen def association bi kañ la tàmbali waaw sëñ Aline man maay président gëm sa bopp mu mel association bi ñu koy tàmbalee léegi ñu ngi ko tàmbalee 2021 le 13 2021 lañ ko tàmbalee boo ba léegi nag ñu sant yàlla baax a baax a baax. lu waral ngeen def association bi. waaw association bi ñu koy def li ko waral mooy dañoo dëkk Malika juddoo fi yaroo fi xam fi lu bari nekk feeg si ñi mbokk yoo xamante ne ñoom ñëpp doo ko sarel lañ ñu gis ne ñoom ñëpp ku ci romb sa moroom da nga koy tàllal loxo dem sa yoon ñu si bari xamante wuñu té en plus ñu ngi gis borom super yi borom taxi wala borom kalando yi ñom ñu ngi nekk seen garage ba paré en plus ñu ngi créer ben association bo xamanteni dañ ci créer lo xamanteni mo lay avancer lo té ñun amuñu ko ñu né pourquoi ñun li gaay yi def ñun amuñu ko té ñun kenn da ko ño xamni ñi wuté xaaliss la mo tax ñun waru ñoo créer xol ñi nga xamanteni ñu rek Malika en plus tamit rek ñu Malika ñepp ñu mëna and ak ñu rek yor saret ñu jëm leen a xëcc waxtaan ak ñom def ben association bo xamanteni ñepp dañ ci gis suñu bop loolu la waral ñu créer association mais ban ban ambition gën ci am lan ngeen ci bëgg ci association bi waaw seen ali liñ ci bëgg moom bari na trop liñ ci bëgg moom bari na muy lenn muy bëgg nañ ko ci jàppale teg ñu loxo bu baax ndax doo gisee ay ndaw di dox doxuñu si lenn lu dul yor saret di liggéey te ku ne xam na ne saret dafa xaw a doy waar tey da ngay xëy sa kër yéeg sa saret di génn romb nit sa fas xelu sax ñu ne maytu leen sàcc la ñu ne maytu leen sàcc la nga romb oto oto oto bi romb sa buntu kër di xelu ñu ne maytu leen ko safar bi mënta daw ndànk léegi ñu gis na ñaari wax yooyu dafa xaw wute lool ki yor sareet saa ci ko dëkkal ki yor oto dawal ñu ne carrément moytu leen ko mënta dawal ndànk léegi ñu ne maanaam dañoo war a créer xool maam li nga xamante ne moo ñu jëmale kanam am plus ñu woo tamit ñi nga xamante ne tey ñoo nekk si biir dëkk bi ak fu mu mën di nekk ñu jéem ñoo dimbali biree sax day jar ñu wax ñu loo xamante ne tey dañ war a def pour am suñuy këyit ba fuñ mën di jaar am am loo xamante ne kàddu yoo xamante ne fuñ ko yëkkati ñu xam ne carrément borom sareet ñoo ko yëkkati loolu dañuy dimbali ñi nga xamante am nañ doole te mën ñoo dimbali ba ñu am leneen lu gën sareet sax ñu dimbali ñu ko ndax sareet du du métier moo xamante ne day mucc waaye lu ñu jàppandi la rek lu ñuy jàppandi mais kenn xam ku ne xam na ne sareet du loo xamante day mucc daal mucc lay doon association bi ku si bokk na na naka yan sart moo si am ku si ko doon saret noo war a def ak loo xam ne boo ko defee eh, danaan la yow bokkatoo si wala dañ lay àllamaan si nga doon borom saret mm-hmm. waaw association bi li ko créé moom si loolu sax loolu si ëpp ëpp solo mm-hmm. ndax euh, Malika ku ne xam na ne dafa nekk dëkk boo xam ne dafa xaw a dëng trop mm-hmm. dafa dëng trop te li ko dëngal leen kese la chaque jour ñuy wax borom saret te nekkuñu borom saret nekkuñu borom saret xëy na tamit ñu ngi yëg saret yi mais nekkuñu borom saret léegi moo tax bañ ko créé léegi ku si mën di ñëw doo ñëwee bëgg a nekk si liggéey bi li leen njëkk wax mooy asos bi bëgguñu si kenn kuy toog ak mbooloo mi di tux ñu kenn koo xam ne lay dëkkal foo dëkkul wala boog ñu xam ne yow da nga jël alalu jàmbur saa buñ ko xamee li ñuy njëkk a def mooy dinañ la woo tale si biir mbooloo xam ma ne la yow doxoon nga si mi loo xamante ne ñun neexuñu ànduñu seg yow yedd la ba nga mën koo bàyyi doo ko mën a bàyyi ñoo xam nan lañuy nan lañ lay lijjantee ba génnale si bi fi mu toll nii man dama see sant yàlla bu baax a baax a baax ndax ba ñuy créé asos bi defe naa tooguñu ak benn homme de tenue tooguñu ak kenn koo xam mën nañoo dimbali mais yàlla dimbali nañu ba fa nii si ginnaaw toog nañu ñoo xamante ne tey buñ ne woon carrément nañ teggi baar ñu koy teggi muy muy waa ñi nga xamante ne ñoo fi nekkal yoon di polisu Malika toog nañoo ak ñoom xamal nañ leen li ñu tax a jóg war na leen ay carte membre yoo xamante association moo ko wax nañ leen li ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy jàppalante suñ biir ku si am xew ñu nettal la dimbali la ku si am nakar ñu bokkoo ak yow nakar woow tax na ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi saret moo ñu boole bu jeexee jeex na am amul kenn koo xamante ne jàpp na fi sa moroom lenn bañ demee ba wax loolu commandant bi nga xamante ni moo fi ne moo ñu fi nekkal lim ñu njëkk a mooy ànd naa see te naa liggéey bi nga xamante ni liggéey ngeen ko man li ma leen njëkk wax ñu ne ko ñu ne ko waa mu mooy ngeen dem maire yi sàkku fa kayit wax leen maam li leen tax a jóg boo leen di xasee ba dem maire yi wax leen li leen tax a jóg ba ñu jox leen kayit boo leen ñëwee si ñun man teg naa teg sama loxo dimbali leen ba foo leen joxoñ man man man man commandant dinaa ko dagg ngir seen jëmm ji mais képp koo leen xamante ne dafa nekk seen biir wa illaa nekku seen biir ngeen xam ne defkat la tey na ngeen fexe ba jéem a def la tout ba jëm ko annoncé ñu xam kii di nga xamante ne defkat la ñu jël si ko fa mu nekk indi ko fii yar ko xam ko xamal ko nan lay doxe xamal ko yéen ni ngeen di doxe ngir mu ànd ñëw di ànd ak yéen si ni ngeen di doxe mais dañu gis ñaare ndax yéen a ngi bàyyi xel comme da ngeen defar nañ gis xale bu ndaw toll ci ay 6 ans 7 ans yor saret war a jàngi loolu nax yéen a ngi siy liggéey. surtout loolu nag wax dëgg yàlla loolu ñu ngi siy liggéey bu baax ñu ngi siy liggéey bu baax ndax fi mu toll li ñu gën a yokk yóbbu meeri nag loolu si la bokk. ndax man loolu man maa ko njëkk a contour ndax d'accord ma tey nga nga dem si àll àll bi ni mu soree fii jaay fas ni mu soree nga dem xool fas bi nga gën a bëgg bi gën a seer nga fay sa xaalis bi yo tal ñëw di si liggéey di si liggéey bañ commencé laa nawloo nga xool xale boo xamante ni tey mënul boppam dara wala antunul loo xamante benn brique sa doo ko yëkkati du ko yëkkati nga jël sa alal di ko jox naa ko yóbbul ma kursu wala dafa ma nii mu jël saretu def nii mbëkk oto jàmbur fay moo la si fekk yow mi yor bi fay moo la si fekk wa ilaa borom saret bi si boppam problème la si am problème mooy dafay jël fasam jox ko xale boo xamante mënagul dara mu mbëkk alal jàmm mu mu ko fayee alaa kulli aal fu muy mooy si lay mujjee ko see ba dem si yoon moom ku ne xam na borom saret fu ñu koy amul arrangement boo xamante bu bu bu bu yomb lay doon arrangement moo gën a métti ndax dafa ko sare nga te juboo amul leen lu leen lijjantee ndax amoo kayit moo tax ñun fi mu toll li ñu bëgg mooy képp koo xamante yaa ngi si dëkk bi te yor saret fi ñu taxaw fi ñu bëgg a taxaw pour lijjanti ko doo mënta am carte ñu jëm laa wutal kayit boo xamante laa ku la nga koy am doo ko amul fu ñu la fu ñu mënti ak yow yoon da lay teg loxo yóbbu la nga lijjanti kayit fay ko wala nga wut carte waaw te instant bi loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi si loolu daal mais itam kii yooyu kan moo war a yor fas ndax fas tam yor ko di ko dóor te ko yéen coone ak ñun war a yore fas danga war a takk guddi ak bëccëg wala. waa fas moom borom yë borom xol yërmande moo ko mën a yor fas moom borom borom xol yërmande moo ko mën a yor ku yorul ku amul ku sa xol amul kii yër yërmande du nekkul si yow. pour man doo yoree fas maanaam erreur la. ndax da ngay gis koo xamante ne maam day jël loo xamante boo bokkul si moom muy day naan sàngara wala muy 15 wala muy tux loo xamante ne day yóbbu xelam tey mu romb la ne tat romb la yoroo fasam bari na fi bari na fi te nekku si ñun nag wax yàlla gisuma ko waaye loolu dafay bari kooku moom mooy ki nga xamante ne nii tey amul yërmande si fasam ndax tey xelam néew fi te li muy gën a def mooy fasam bëggul muy daw ndànk ndax fas yi du doon daw ndànk sa jéego yi muy dox da koy xeeb pour moom fi xelam toll rek foofu la fas xelu fas fa la war a toll kon kooku yaakaar naa fi doon li may gën a ñaax mooy ku fas ku am ku xolam ku xolam am yër xolu yërmande daal moo mën a yor fas mais ku sa xol maanaam oyoful wala moo yërmande si sa jur bi nga yor pour man jox la fas sa erreur la daal looy ban ban kii ngay wax oto yi ak fas yi si tali bi ndax fas ak tali yéen a bokk tali bi daal yéen ak borom oto yi foofu ban ban message nga fa bëgg ak loo fay jàlle si association bi waaw li ma fay jàlle moom loolu sax yaakaar naa chaque jour dañ cee waxtaan mais yaakaar naa sareen moom ki yor sareet naan la mosuma mbëkk oto wala oto mosuma mbëkk bariwul mais nag doo ko mbëkkee xëy na da ngay ñu baal la wala nga arrange ñu ne nag may fay ndax sareet moom même buñ ko mbëkkee sax du yoon ñëwee li mu njëkk mooy da koy fay yow borom sareet bi yow la naan da nga koy fay ndax yow lañ mbëkkal de mais nag yow lañ naan da nga koy fay ndax amooy kayit kon li ma sama mbokk sareet yi mooy muy Malika Kër Massar benn barak Géejawaay fu mu mën di ne duñu xëyee yor suñu sareet nañ xam ne ñuy dawale si kaw tali bi te ne comme ni ko suñu jëwriñ ci waxee sànq suñu grand frère muy Balla muy ku ne xam na ne euh, sare fas moom ku e xam na ne moo ñun ñi nga xam ñoo yëg si ñoo yem fu ñu mbëkk fu nekk dañuy damm wala ñu tëj wala ñu am problème sare nag doo ko mbëkkee mën naa daaje nga dem waat oto doo ko mbëkkee mën naa nor nga dem jubbantewaat bokkul ak fas kon li may wax ñi nga xamante ñooy sama mbokk dawalkatu sareet yi mooy saa bu nekkee si tali nañu jël seen voie normale te bañ a topp borom oto yi leen may di len daw bañ xamne xam ngi daw bu baakha baax du baal yaakaar naa loolu duñ ko defé jamm dina am te liñ bëgg liñ ko am dinañ ko am te ciow do am suñ digënt ak moom ak ñoom. ban message ngay lancé en tant que borom saret en tant que euh, président association gëm sa bop borom rew mi ndax kamit ay citoyen ngeen si réew mi dañ ngeen bëgg président man ko dégg ngeen wax ko. wa président mom liñ ko wax moy ñun ñëpp la fi nekkal ndax tay Sénégal moom benn bop la kenn mënu ko xar ñaar tay mom la fi yalla tek kon nañ koy sant bu baax baax. di ko wax nag yan moom day diis ku mën di toog sa yan day diis lu ne di nga ko dégg mais ñi muy bàyyi xel xam ne ñun ñooñu ñu muy bàyyi ñun si lañ bokk mais bu mu jël lenn rek boole ko si ñi sëbooru sëbooru oto yi wala mu boole ko si ñi nga xamante ne ñooy yor liggéey bi nga xamante ne mooy liggéey benn liggéey ñun borom sare ñoo bokk Sénégal dañoo bokk si réew mi ak ku mu mën di jàppale ñun war a ñoom di bàyyi xel baax a baax di ñu sóoraale lépp lu mu mën si ñun mu dooleel ñu te rek tax loolu moom bokkul si li dañ ko koy ñaan di ko ñaan ba yëpp képp koo xamante ne yaa ngi koy jege tey gis message bii nii mu jëm a yegg si moom ngir mu dimbalante yàlla tax teg ñu loxo ñun ñun borom sareet yi ndax ñun son nañ trop wax dëgg yàlla sonn nañ ndax suñuy waajur lañ nekkal te ñun lañ ñun rek lañ yaakaar te ñun ay ay sareet rek lañ yor yoruñu lenn lu dul sareet saa bu ñuy xëy lépp lu waay yor doo balaa ngaa génn sa kër di ko jox sa ndey wala nga jox sa baay mu dépassé ko waaw sa sareet a ko waral tey jàppuñ si lenn kon ñun ñi xëy di di sante yalla ñu ngi sante yalla nak wax dëgg yàlla ñàkku ñu ngi sant yàlla waaye de sante yalla gi man ko wara gëna yokal ñu may ñu jamm ci talibi te tek ñu loxo ba sa bu ñu xëy ñu gëna gis lu gëna tawfiqe lool fekke wa lool waaw loolu bokk na. jaajëf lan ngay tejje ak ban message ngay ngay lancer message may lancer moy damay sante mbolo mi wax deug yalla ndax lepp ñom la ndax bu doon man ak man rek yaakaar naa lii dara du ci am bu doon man ak man rek sa bu ma toogee wala sa wala bu re man ak kenn sax yaakaar li ma bëgg du soti tey lii ñu def ni ñu ngi koy soog a def te bi ñu koy waxtaanee amul coow amul wax ju yàgg benn fan lañ toog ne dañoo war a santaat bu baax a baax ñu ne lan lañ sant ñu ne ñoo 18 safar gi ñu ko war a taxawal. sant si comme ni ñëpp di sante tey doo xool ñu ñëpp duñ ay taal Sëñ Tuubaa comme ni ko sa waay waxee tey ñi ay ay ay tijaan a ngi fi ay ñeseen a fi ay laayeen a fi ay murit a fi waaye xam nañ ne weer wi maanaam dafa nekk weer woom weeruk sant la te ku nekk xam na ne weer wi moom dañu ko war sant sëriñ bi ba ñëpp xam sant nañ sëriñ bi sëriñ bi nag ba muy sant newul na ma murid di santale dane képp koy jullit na ñëw santale ma sama weer wi ba sama bis bi xewuma ginaar ba si béy ba si gilew ak lu waay mën di am kon loolu rek maanaam taw féex la ci ñun ñëpp kon li may lancé mooy di santaan mbooloo mi ma nekkal yëpp muy association gëm sa bopp di leen wax ne ñoom ñëpp ñi ñëw gën nañ leen soxla ñu gën a ñëw ñi ñëwagul tamit ñu ngi ñaan yàlla ñoom it lépp lu leen tënkoon wala lépp lu leen teewoon a ñëw nañ xam ne fii jàmm moo fi ne salaama fi ne jàppalante moo fi nekk soxla ñu fi leen lu ñaaw soxla ñu soxla ñu fi leen lu ay loo xamante ne lu indi bur wi la wala dara kon képp ku ñëw ko tamit ñu ngi lay ñaan yàlla rek tax nga ñëw jàpp si liggéey bi te xam ne liggéey moom bëgg na si leneen loo bëgg lu bari loo xamante ne maam day gën a taw feexe daal waaw loolu daal ñu ngi koy ñaan mbooloo mi yëpp di leen sant yéen di leen sant bu baax ndax li lépp yéen la ndax tey du bay taxaw di wax nii ba ñu ñuy mën a gis maanaam seen jëmm la ndax tey bu muy lii kase yaakaar naa ne liñ bëgg ñi ñu xamal ñu ko te duñ ko xam liñ bëgg ñi ñu gis ko si ñun duñ ko gis kon nañ leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex ndax di boobu ba léegi wax dëgg yàlla yéen a ngi ñuy woo soññi naan ñu taxaw leen si bis bi ndax bis boobu moo leen yóbbu fu sori kon tamit ñu ngi leen ñaanal bu baax yéen ngeen yàgg fi lool ba képp koo leen gis koo xamante ne kuy dimbali doomu aadama la ñun ñu ngi ñu ngi ñaan te yàlla rek tax ngeen boole ñoo ñooñu ngir ñu teg ñu rek tax ndax mbooloo lañ nag de mais ki ñuy teg loxo ñun kooku la ñuy teg loxo te ñun fu ñu teg suñu loxo barki Sëñ Tuubaa Mbàkke taw feex moo fi am te loolu lu moo wér lu wér la si ñun ndax mbooloo mi gën naa taw feexe te yaakaar nañ ñëpp am nañ yéene pour tegandoo suñu loxo waa jërëjëf lay tàggoo waaw sant rek man moom sant rek di ñaanal xalifa diine yëpp nag yàgg fi lool te ànd ak wér ndax li yàgg fi moom suñu sag la suñu mbégte la ndax gis xale xalifa diine li mu def di wax ne tamit ñi nga xamante ay taalibe lañ ñu yem si euh, jëfi taalibe rek ñu yem si jëfi taalibe te xam ne diine yëpp benn la muy tijaan bi xaadir murid bi ñeseen bi ñëpp benn lañ waaw ñun nag ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ Seera Faal rek lañ yaakaar waaw kon nañ gëm ne maanaam nañ boole lépp xam ne diine yëpp benn la fu ñu waaye woo nag ak fu mu mën di doon si mbirum si mbirum diine moom ñu nga fa waaw ñu nga fa moom a xamuñu amuñu amuñu xaar ma yàlla moom waaw loolu daal laay wax di ko wax sama mbokk kilifa yi tamit ñu dégg ko di ko wax sama mbokk taalibe tamit ñu xam ne maanaam liggéey bi yëpp benn la kilifa yi ñun ñëpp lañ fi nekkal ñun ñëpp lañ fi nekkal maa ngi sant di gërëm di siyaar ñëpp tur yàlla yi mënut a ñàkk de zikrulaay zikrulaay ah, mënut a ñàkk de ndajam Baye Fall kay mënut a ñàkk tur yàlla te xam naa ñëpp nee na yaayar tur yàlla kon Baye Moussa bisimilah ay bra gaay gëni ma ci sax mama du rasulullah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا نبي الله يا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله la la o Muhammadu Rasulullah la la la o Muhammadu Rasulullah la ila ila la o Muhammadu Rasulullah la ila ila la o Muhammadu Rasulullah la ila ila la o Muhammadu Rasulullah ndamal daru lañu boole Mamadu Rasulullah ba Maam Bambay dem sa géej ga ndamal daru lañu boole Mamadu Rasulullah ba Maam Bambay dem sa géej ga ndamal daru lañu boole Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah La ilaha ila la fala ilaha ila la la ilaha ila la maam Seex Ibra Faal la ilaha ila la la ilaha illallah fal la ilaha illallah ñoo ngi ñaan dellu fal amin ajo jah fi amin waay ñoo ngi ñaan faal dellu ñaanooy sëriñ Muntaxa yàgg ya fee yàlla yàlla dégg ñoo ngi ñaan dellu ñaan faal sëriñ Muntaxa yàgg fee jërë ngeen jëf ñu ngi siyaar ñëpp